moom borom xam-xam boobu wa yuxriju dina génne almurida ab taalibe min ubbila si ci taalibe ba sopp loo xam ne yadruhoo loola da koy lor li naafihi jëme ko ci aji jëriña ja di yàlla fil maxasi ca jàpp waay ba yàlla rek a jëre jàpp lépp lu mu jàpp loo xam ne da koy lor dina ko bàyyi mu omat ko yóbbu ko ca yàlla kon yéen ndaw ñi waxtani moo na ngeen màng xam seen juróom xubaylal xamsa lu jiitu juróom di leen dal kama amara nii la ko diglee de bii ci moom xayrul an anisi kay ngeen ji nit mu yenent bi moo digle loola alayhi yal na yàlla wàcce ca booba afdalu salaati ngeen ji ay xiiwal bi salaamin ànd ak musal fi alihi te àggale ko ca ñoñam wa sahbi àggale ko ca saaba ya alxuril kiraam ñay sang su tedd sax amin li lay dénk awalu haaba ca jiitu sababu ak waxambaane boo ci tolloo na nga gaawantu sànq ko ci luy jur ngaramal yàlla xablal xarami lu jëkk lu jiitu ngay màggat muy benn wa misloo am kemam sixatu wirgu yaram bu la ko yàlla mayee na nga gaawantu sànq ko ci luy jur ngaramal yàlla xabla saqami lu jiitu ngay feebar muy ñaar saaliso a ñetteel ba alxinaaw am koom mooy am wërsëg bu la ko yàlla dénkee gaawaltu sànq ko ci luy jur ngërëmal yàlla xablal faqri lu jiitu ngay ñàkk su mal faraaxu topp ak feex maanaam am jot am temps bu la ko yàlla mayee gaawal sànq ko ci luy jur ngara ngërëmal yàlla xabla soxli lu jiitu ngay am soxla yasir jot dina dikk kenn ku ne di nga mama sam bis sa soxla mooy fexe ba cin li bax suba bax midi bax guddi mu ngi yor soxna yori njaboot te bu demee ba soxla soosu gaar la fekk yow feexoon nga te feex ga sàkkoot ko ci luy jur ngërëmal yàlla su boobaa dootoo ko tal kon gaawal ci sa feex sàkku xam-xam ba ëllëg boo doonee mag nga xam ni ngay jaamoo yàlla boo liggéeye ñëw jaamu yàlla jàpp sa njaambur xaami soxaa juróom ba al ayyaatu al ayyaatu ak dund mu ne dund googee gaawal sànq ko ci luy jur ngërëmal yàlla xablal mawti lu jiitu faatu ndax dee ngi daw wut si la nga daw wuti dee doo dëpp dee du dëpp faaw ngeen daje kon góorgóorlul ba boo dajeeg dee am fa ngërëmal yàlla kon yéen gaa yu baax yi fasaari hoo na ngeen gaawtu lil xayri jëm ci wiiw xablal fawti lu jiitu muy faat xablal fawti lu jiitu ngeen di taseeg dee unaa fii intaha lay yem tasawadu siqaari téere bi ñuy wooye tasawadu siqaar tey yóbbalam ndaw ñi bi am di rabbi yi maa ngi koy jëf nag man sëriñ Tuubaa ci sant sama boroom almaanihi kay aji fekk ja as saqaari ndaw ña téere bii nag man sëriñ Tuubaa na samtuxoo woy naa ko li wacci rabbiyal karim ngir jëmmi sama borom may aji mag murtajiyan tamay yaakaar minu ci téere bii sawaaban ab yool laa yarim yool boo xam ne du dogg ba mukk amin yal na ko yàlla nangu na samtuxoo woy naa ko yaqoodu te dina leen ommat lil uloomi yóbbuloo ci yóbbu leen cëpp xam-xam yéen ñi koy jàng su ngeen jàngee téere bi di tasawudu si xaar dina leen ommat jëme leen ci xam-xam mu feq ak tasawuf ak tawhid wala amal te dina leen omat jëmaleen ci jëfe xam-xam wali taadu bi téere bii dina leen yóbbu ci ak tegginu ngeen tegginu yasirul amal téere bi tamit dina jàppandal seeni mébét te seeni mébét mooy lépp lu leen di jural ngërëmal borom bi urjoosatan way woo xam ne nekk na ko naafi atan way wu di jariñal la mubaraka di way wu ñu barkeel bayna sawi musharaka di woy woo xam ne wu ñu barkel la bay na sawi sahaadati te it dinañ ko bokkalante ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy waroom ak texe nit ka nar texe ak keneen ku nar a texe woy wu barkeel wee dinañ ko bokk moo tax jàppal ne wu baaraka woy wu ñu barkel la bay ni sawi sahaadati te dinañ ko awan awante diggante ñay waroom texe musaaraka ñu di ko bokkalante di ca jàngalante di ca xamlante di ca leeralante walaaw yàlla rabi kay sama boroom xabila nangu na saani saam téere bi ngay jàng yàlla nangu na ko mi ngi ko nangu nag bi jaayil muntaxaa ci darajaay ku ñu tànn ka mi rasulillahi salla na yàlla dolli teraanga ak jàmm alay ca rasulillahi bi dolli ko musal yun taxaa jàmm ak musal goo xam ne dañ ko dañ koo tànn naafi atan woy wuy jariñe la bii ci darajay rasulillahi te it way wii dina jariñ kulla sahidin jépp aji texe naasihin tey boroom ak laabiir amul genn iñaan goo xam ne day tax ma woon ginnaaw téere bii muntabihi tey boroom ak yeewu muy képp koo xam ne yeewu na digganteeg boroomam muy fexe lu koy jural ngërëmal boromam kookee dina bëgg téere bii fala yazaalu musta dañ mukk moom téere bii jaaliban di la ñoddi ilal buruuri jëme la ci ak mbaax wa daafiha tey dina la fegal yow mi koy jàng ku la saqaa in gépp texeye di maanaam gépp nar a dem sawara boo jàngee téere bi te jëfe li ci nekk yàlla dina la ko fegal wa xuróor ak gépp woru boo jàngee téere bii te jëfe li ci téere bi yàlla dina la fegal ak woru asina digal na lii ñeel ma ki ko digal allahu mooy yàlla fi nas mi ci ma woy téere bii assamadu yàlla moom mi nga xam ne mooy aji jibluwaay bay aajo moo ma digal ma way téere bii wala yu jurul yi te yàlla du ñod di jëme ci saa jëme ji dawaahiya mboolem fexey way noon ya ak njaqare la nga xam ne dinañ ko defar dinañ ko fexe ba di ko jibale ca kañu bañ ñooñee duñu jublu ci man mukk seen njaqare yooyee ñuy fexe teg ko ci ci nit ku baax dootuñu ko am mukk